dalee nag jàmm dañu koy door rek Racky Aïdara mi génnewaat photo yu yees peq ci mariage am ak Doro Gueye yooyu photo day Racky Aïdara daf ko dencoon foo xamante ni bi daanaka kenn gisu ko waaye itam copine am xamante ni bi ñoo teewoon ca mariage bi ñoom itam ku ci nay rek ndekete yoroon nga photo ya waaye kenn mësu koo publier fexe nañu ko ba dencal ko Racky Aïdara ba bés bi nga xamante ni bi bés bi jot na ay dara publier photo yi ba noppi itam yëngal dëkk bi Racky itam publier waat na yeneen foto yu bees ba noppi itam di ci remercier rek ñi nga xamante ni bi mooy ay xaritam loolu la bind ci sanab sanam ne maa ngi remercier remercier ñi nga xamante ne bi ñooy sama ay xarit te itam ñu ngi xamante ne bi mënoon naa yëngal dëkk bi te boobaak léegi ni ma ko gardé noonu lañ ko gardé kon nag sama xarit yooyu aw ma seen fay te dëgg-dëgg samay xarit lañu maa ngi leen di gërëm ba fa kanamu yàlla Racky Aïdara animatrice bi ci 2STV moo wax lu ni mel wax ci Balla Gaye 2 bi nga xamante ne bi dañu ko doon prank prank ba nag dafa mujjee échec ba noppi itam mujjee ci ki nga xamante ne bi moo di Mahfous Balla Gaye 2 di moom la Mahfous doon jéem a prank waaye nag ba ñu koy prank dafa mel ni yëf yi dafa mujjee cool daanaka ba ñu tàmbalee def yëf ya ak a ci la Balla Gaye teel a nand pièce ba daan na leen nag prank moom man mënu leen ma koo def te itam ay caméra cachée taxumaa jóg Balla Gaye de ba mu expliqué nee li tax ma xam ne li ab la man góor du jàkkaarloog man may wax muy dëggal waaye la xam ne kii nii am na lu làqu ci ginnaaw ci laa dox avancé dem kon nag jàpp ngeen roi des arènes muy Modou waaye man empereur des arènes kenn mënumaa jàpp ci ab ci noonu itam entraîné daanaka prank ba fa ñu ko mujjee eggali jee mooy ca dunya fa Balla Gaye 2 di entraîné waaye nag la dal Mahfous rek moo metti ndax nag ba mu ñëwee daanaka moom mi doon prank moom la Balla Gaye 2 far mujjee prank tee ko fa di tas aw yaramam ak di ko entraîné loo ca dunya wax ci face to face Modou Lo Siteu bi nar a am ci TFM tey jëlee ci samedi ji lay doon Modou Lo ak Siteu lii leen di seen ñaareelu face to face ñoom ñaar ñi nga xamante ne bi ngi nar a jàkkaarloo rek boobaak tey monde lamp ku ne di xaar combat boobu nga xamante ne bi combat bu nar la muy Modou Lo ak Tarkindaab gàmm gën bi di Siteu tey ji nag dinañ jàkkaarloo rek ci Télé Futurs Médias télé bi nga xamante ne bi bésub lamb ji day moom moo ko nar a wane Kader Sen TV kàddu yi mu yëkkati woon wax ni am na ci police bi ñoo xamante ne bi dañu leen di corrompre li lee waral rek immigré yi nga xamante ne bi dañuy gaal gi ñu daal leen di bàyyi woon ci gaal gi nga xamante ne bi itam dafa amoon ay nit yu ci ci faatu daanaka gaal gu teeroon ca mamel te ñëpp ñàkk seen bakkan Kader wax ci wax joo xamante ne bi takk der yi dañ cee gis leen bopp li lee waral ñu daal altine Kader nag fi mu nekk nii la koy xaar te cybercriminalité bëri na war naa taxaw rek daa indi ay preuve ci kaddu yi nga xamante ne bi yëkkati na ko teg ko ci darub suñu police lu ko may rek bu moytuwul du baax ci moom moom Kader mi ci Sen TV faaw wax yooyu nga xamante ne bi wax na ko rek mu indi ci ay preuve ba noppi tam mën a taxaw seetal boppam dëggal boppam wax ci Wally Ballago Seck mi ñu gis ci complicité moom ak doomi Amady Badiane daanaka di geste boo xamante ne bii day faramaareen yëpp a ngi koy rafetlu Ali Wally Ballago Seck day fob na doomi Amady Badiane bi ji mu kaf ak moom ak réew ak moom ginnaaw juux jàng yu fi doxoon seen diggante ñoom ñaar itam gis nañu leen ni fi mu nekk nii lépp nga dox ci jàmm ndax it nag ñi ngi kaf ak réew ba noppi itam seq jàmm ju bari kon nag ginnaaw ay jàmm diggante Wally Ballago sekk ak kii di Eumeudi Badiane Wally Ballago sekk moom ci moom laay des ci ab choristam di Fatou Diop ca la demoon rek battre ko xaalis bu bari Fatou joob mi doon tëgg ab soirée Wally Ballago Seck dem fa rek daal di ko battre lu toll ci deux millions de france CFA ñu gis ne Fatou Diop nag fu Wally Ballago Seck mës a taxaw rek nekk ci ginnaawam di ko aw wax ci Sidi Diop ak Astaax seenub clip génn na clip ba nga xamante ne bii mooy feeling page jonge page te itam xale yi doon ko challenge boobu ak tey Sidi Diop far na génne clip ba mën nañoo seetaan déjà teaser bi mu nekk itam clip bu rafet boo xamante ne bii Sénégalais yi teel nañ ko apprécier moom Sidi Diop moom daanaka ba mu génnee ca kaso ba ñu ko tëjoon ndax mbirum permis boobu ak tey nag mu ngi def rek ay interview di wër di leeral mbir maak na mu dundee kaso ba ba mu demee ca Pape Cheikh Diallo day wax na ko ne daanaka juge ba mu man ne ma yow yaa way feeling pàcc jonge pàcc cekete pàcc ma ne ko waaw mu ne ma lan moo tax dolli woo ci permi pàcc nee na juge ba lii la ko wax tey itam ma nga expliqué rek ne mun na de ab xiif képp moo ma yóbbee lu ni ndax damaa tëdd ba guddi ab xiif dab ma ma génn di wëri ab tàngana li lay waral ay policier daal di may arrêté kon nag nañu jàpp na rek ci ab tàngana laa jëmoon bés bi nga xamante ne bii ci la ma nattu bi di daal wax ci maam Ndiaye Savon mu génn di wax ne moom day li tax dëgg-dëgg mu taas tey la koy wax sénégalais dañ koo naroon a takkal wujj wujj woo xamante ne bi daanaka waxtaani woon nañu ñu ba jàpp bés ba ndekete loolu lépp jëkkëram ji nga xamante ne moom la doon sëyal mi ngi koy def ci suuf li lay waral nag ba mu ko yëgee mu indi ci ab kalaatma ba sëy ba mujjul am maam Ndiaye Savon moo wax lu ni mel nee lii moo waral ak tasam wax ci keneen ki di Pape Sidi Fall moom itam mi nga xamante ne rek doon na souhaité joyeux anniversaire soxnaam si di Khadija nekk ab journaliste ca 2STV ñoom naar nag bésub juddub Khadija ci la ko Pape Sidi bi daanaka boo gisee mbind ma lépp a reetaan la moom animateur bi di Pape Sidi Fall wax ci Pape Cheikh Diallo mi maire ba fut te ñu seen ko ci réseaux sociaux muy dàgga sante lool yi nag tàmmuñ ko woon di gis ci kii di Pape Cheikh Diallo daanaka coowal Clara ak Racky Pape Cheikh Diallo wax ca mu ca waxoon wax ni Clara yow laa xam yaa may mayub xaalis ba ko ci nit ñi attaqué génn na tontu daan ne wax jooju bëggatuma ci dégg bëggatuma cee wax te itam wax jooju rek ma soof fi mu nekk nii wax na ko ci Snapchat wax ko ci Diop ñëwee ba muy waxtaan ak moom itam génnewaat na sujet ba wax ci mu mel ni nag wax ju ko metti la moom animateur bi di Pape Cheikh Diallo Bass Thioung mi war a def tournée internationale may ñu visa ay musiciens léeg-léeg di lu métti loo xamante ne bii dal na ko moom nag nekkul première victime bi ndax nag daanaka barki Dembo Ndiaye rek la dal ki nga xamante ne bii moo di Mia Guissé Bass Thioung nag di ko naqarlu di wax ne lii la daal dafa a bu dul ñun artistes yi sax waaye nañu xool rek ci étudiants yi nga xamante bi heure bu ñu bëggee dem bitim réew mu jafe lool loolu yi nag war nañ cee waxaat a abal ay musicien ya nar antu moo di Wally Ballago Seck moo jël rek yenn ci ay musicien daal di ko a a ràññee moo di ni bi moo di bastion bastion di wax rek ne lii la daal lu fi war a dakk la waaye nag ma ngay gërëm Wally Ballago Seck mbaax gi mu ko defal di wax ni Wally Ballago Seck moom maa ko bëgg naturellement yenn saay sax daf ma yee fajar la may wax di ma laaj yëf yi fu mu toll ndax lépp sotti na ana lan moo manqué bastion di gërëm Wally Ballago Seck ngërëm gu amul ab Massamba Fall mi ci kër brisé wax na lan moo tax takkagul soxna ba léegi nee na am na posture yoo xam ne boo ci nekkee daal pour nga takk soxna dafay jafe ndaxit nag pour nga gis ki koo xamante ne bi bëgg na la dëgg war wala pour nga xam ki la bëgg loolu day jafe looloo waral man Massamba takkaguma soxna waaye nag bëgg naa takk soxna ndax it nag jot na dëgg-dëgg ci man waaye dama gisagul koo xamante ne bi moo méngoog man ak koo xamante ne bi bëgg na ma président Bassirou Diomaye fay waa Amérique dana koo may rek cinq millions de dollars yoo xamante ne bi dañ koo jël jagleel ko Sénégal ngir nag encouragé leen rek ci xeex gi ñuy xeex wàllu guerre loolu yi nag secrétaire d'état américain ba ba janoo rek ak ki di président Bassirou Diomaye Faye wax na ko ba noppi itam daal ko félicité ci xeex bu rëy bi nga xamante ne bi mu ngi ko sumb ngir rek di xeex wàllum guerre di corruption Moustapha Dramé yàllay kese mi nga xamante ne bi mi ngi ci loxoy mi ngi ci loxoy takk der yi fi mu nekk ni la koy toppee rek mooy escroquerie au visa tey nag ñuy wax ne coow li day du benn nit ndax nag daanaka la yoral mbirum xaalis doon leen lijjantil ay visa ñu bari nag tàmbalee tiit rek moo doon woowee boppam yàllaay kese ñu bari di wax naan am nañu njàq rek tiitaange ci moom ndax boo mooy tuul ab mandat de dépôt mi ngi koy yoot mbir mu day waar moo xew ci bus 52 bus 52 ba nekk diggante Pikine ak Thiaroye daanaka benn waay daal moo ci yëg rek jël benn xale bu jigéen sësu ko naa di génne awra ya di ko ko teg ba yëg boppam li lay waral nag xale bu jigéen ba mu ko gisee daal di ko dénoncé bus bi yëpp jàppale ko bus ba nag ma nga teere ji rek ca commissariat ñu demee waa ji ñu daal ko jàpp amul lenn lu muy lay ludul xale moo ma doon sës waa ji fi mu nekk nii jël nañ ko defoon ko ci ab garde à vue ba mujjee ko defeere Ghana la ñuy waxtaanee Ghana moom li fay jóge ñëpp xam nañ ni ci wàllu tradition dañoo bëri doole waaw bio Ghana lu ñuy diwoo à base de karité bu dee da nga am ay jafe-jafe ci sëy dañu lay jàppale ba nga xam ni da ngay defe ne xale bu ndaw nga te bëri kattan lool te bëri doole am na saabu boo xam ni boo koy sangoo day dàq rab boo koy sangoo làmmiñ du mën dara ci yow bu sa yaram diisee saabu bii bàyyeekoo Ghana moo baax ci yow boo amee yi tànk yu metti à lii médecine traditionnelle pire la am nañu cuuraay bi tudd gab-gab bàyyeekoo Gana di dàq rab rab yi loolu rek la ñu ragal seytaane cuuraay boobu dong la ragal cuuraay boobu day tax say noon bàyyi la jublu feneen bu ñu lay xeex ci service lii mooy li nga xam ni mooy cuuraay bi baax mi ngi tudd gab-gab am nañu ay xob yoo xam ni tamit pour ndoxum siti la ak hémorroïde ak yaram buy metti bu efficace sax saabu bi cuuraay bi xob bi diw bi mu ngi bàyyeekoo Gana ca Tamale mën nga ko am ca Touba ca Mbacké ci Dakar